mën a sottee amatul benn yaakaar jullit la bëggul bàkkaar te moo di kaw Mozo Malamba. Mozo Malamba. Mozo Malamba. Chat fent no way, jaglel ko taw, goni bless moy chat, te jiwe na taw. Mozo Malamba. Eso na mozo, mozo salaamaaleykum amis téléspectateurs Equivox TV dal leen ak jàmm tey ma am mbégte ak kontaante dalal ki nga xamante ni nee naa la c'est l'ami des jeunes filles mais du samay wax <laughs> mu doon koo xamante ni macha allah tabarfakàllah mi ngi doon taalibe Mame Baye Niass doon koo xamante ni nee naa la c'est l'homme à la guitare ak waaye nag ànd ak koo xamante ni tarkal la macha allah nee naa la kàllabaas gi ni mu koy def man day daw sama yaram ñu war a waxtaan ak moom tey ci waxtaan bu yaatu bu ni bless ñu lay char maa ngi lay char maa ngi lay char mon frère maa ngi lay bëgg di la char di kontaan ci invitation bu baax a baax mm-hmm. ah maa ngi char ñëpp ñi nga xamante ñi ngi seetaan Equivox TV mm-hmm. vraiment macha allah kontaan naa macha allah ñoo la gën a kontaan waaye bala ñoo commencé mm-hmm. leget gi cas gi mu àndal <laughs> ah waaw sa waaye mi ngi nii ah moom mooy Abi Loket laa koy tuddee donc moom laay moom laay àndal vraiment donc ñi ngi ngi bay suñu waar waaw mhm. ah, macha allah daal mi ngi ne sa waaye am na loo fi tëgg sànq de dama bëgg nga mayaat ma ko bala maa commencé ci Boni Bless laget na 14 milliards Boni Bless mais Boni Bless ñu commencé suñu waxtaan mhm. euh, Boni Bless lan moo ko dugal ci musique parce que musique bi dafa mel ni bu ñuy xool euh, loo jàng la mais am dafa mel ni dafa nekk don ci yow ok musique li may faral di wax dama dama juddoo ci kër gi nga xamante ni nii. Mhm. déjà y a que des chanteurs ah. parce mhm. que il faut noter que je suis le jeune frère du groupe Biddew bu bees. Mhm. et tout maa ngi leen di ziarale bu baax de passage. ce qui fait que nag ñoom depuis bi ñu commencé vraiment la nekkoon seen keppaar xam di xool li ñuy def di di topp seen première concert et loolu moo tax vraiment musique nekk ci man ma bëgg ko. et tout loolu daal moo ma topp ba vraiment amour bi nekk ci man de faire de la musique. après ma rapport ak loolu. commencé dafa dem dafa dafa laaj nga demoon jàngi ko wala da nga da nga ni ci famille am xam musique rek a def musique. non ko sax exactement. Mhm. Euh, cest comme li ma la wax comme ñoom dañ ko doon faral di def. Mhm. te ko xam vidéo bu bees aussi la ma koy faral di xam ne c'est des perfectionnistes aussi ah. parce que mhm. boo xoolee ñoom jël temps bu baax a baax et tout koy xoolaat bu baax et tout. et tout donc man ci loolu rek laa doon xool. vraiment euh, ma nekk ci j'ai commencé a topp seen ginnaaw ci ci waaru woowu noonu. Ah, après euh, te ñoom yàgg nañ ci comme ni may wax yàgg nañ ci musique je pense que ils ont commencé depuis parce que les 97 98 et mhm. tout léegi mën naa ne ay maestro lañ par rapport ak loolu mhm. donc man mën naa ne école bi bu bees laa génne mhm. waaw école bi de bu bees nga génne <laughs> mais ñu gis ni Sénégal les jeunes euh, maanaam dañuy judd ci kër goo xamante ni ay musique kat doo nga fay dekk mm. et que ni tey par exemple musique du baat bu neex kese mm. musique dafa laaj jàng mm. nit mën na am baat bu neex te doo du du mën a way nit mën na am baat bu naqari mën a way est-ce que tey euh, Boni Bless la nouvelle génération tey est-ce que jàng nañu musique bon jàng moom du wees li li li kii di wax nu may da fàtte tur bi vieux Mac Faye dégg naa mu koy wax mhm. nee na jeunes yi li leen manqué ci génération bi c'est-à-dire que ñoom dañuy doyloo seen boppu quoi c'est-à-dire que dematuñu pour jéem a xool ci mag yi ñu ñu ñu gëstu pour jàngat bu baax parce que mhm. musique mën nga am don bi mais bu fekkee tegu ci cadre boo xamante ne ni bien réfléchi ou bien c' bien euh, xool nga ko bu mm-hmm. dire que après da am problème vraiment mm-hmm. pour. Mm-hmm. mën ko def ni mu war ni tax nag da ngay sax par rapport ak sa culture parce que j'ai vu euh, boo xoolee sphère musicale bi instant bii nii. ils sont beaucoup plus focus par rapport ak musique nigérienne. et tout ci rythmique yooyu noonu quoi. te boo xoolee ñoom ils ont fait des recherches par rapport au la Nigéria ça qui nous manquait un peu. Mhm. ba nga xamante ne nii bon copie colla bi moom moo fi gën a nekk nag maa ngi jégalu. Mhm. et tout mais wax dëgg yàlla. Mhm. li may faral di wax chaque fois il faut ñu def retour à la source delluwaat si suñu culture yi voilà. séeréer pël joola rythme yi foofu noonu vraiment bu ñu delluwaatee ci loolu ñun dinañ mën a am benn musique boo xam ne ce sera typiquement sénégalais te boobaa on pourra exporter ça te voilà dinañ am identité par rapport ak suñu mais bu ni à guitare bi ak calebasse bi nii est que yaakaar nga ni war nga mën a génne musique sénégalaise yóbbu ko fenn foo xamante ni dinañ ko mën a déglu bon si mën naa wax loolu parce que boo xoolee Baaba Mhm. boo xoolee ñi nga xamante ni ñooy jotu tournée yëpp par rapport ak musique sénégalaise waxuma sax musique malienne ah. mhm. parce que musique malienne boo xoolee ñoom Oumou Sangaré ñoom ñoom euh, ñoom Salif Keita mhm. ñoom euh, Rokia Traoré ñoom ñëpp boo xoolee seen musique loolu la base bi bongo kese la wala base bi leket kese la ak euh, guitare wala leket kese ak kora loolu kese moo leen di génne ñun pourquoi pas leket bi nii nii comme li may faral di wax tubaab yi ñoom dañoo ba pare xool exactement ñu ko exploité pour ko. te gëm naa ni voilà loolu c'est possible mën na nekk ko quoi. bon ñu gis la ci anniversaire yi ak mariage yi. saa <laughs> yi gëstu na bu baax saa <laughs> yi gëstu na. bon ñu gis la ci ci mariage yi ak anniversaire yi. Mm-hmm. et que ni euh, sànq sama biir présentation maa ngi naan xaritu xale yu jigéen yi. Euh, tey. ku ci def anniversaire wala ku ciy def day bëgg Boni Blaise ñëw animé ko. Mm-hmm. loolu loolu tax na dañuy gis ni cas boobu cas bi mën a am ci mariage wala anniversaire est-ce que Boni Blaise moo ko mën a génn. <laughs> bon je sais mm-hmm. Mm-hmm. di def sa musique rek par rapport ak ni ko sentir et tout. yaa gis donc nag peut en retour nit dañ lay apprécier par rapport à ce que tu fais. te loolu noonu man ndam boobu noonu wala wala wala reconnaissance boobu affaire boo xamante ni ñoom ils vont ils suivent pas ça boo defoon benn mbir boo xam ne ñoom suivruñ ko mhm. donc toi tu peux tu pourras sortir mais nag yaa ngi def loo xamante ni peut-être gars yi ñoom ñu ngi ciy xool seen bopp di ci gis seen bopp di la invité mhm. donc gàcce ngaalaama ñi koy déglu ak ñi may bëggee mais mais est-ce est-ce que mi ngi est-ce que mi ngi fay carrément quoi bon euh, mi ngi fay ça dépend loolu c'est juste nga def concert wala nga def dara pour mën a am xaalis ci musique bi après dafay xaw a compliqué parce que tey jii nii tey gis nga ñu bëri bu ñu génnee CD balaa suba gars yi piraté ga ñëpp am ko cest dire que tey CD ngay génnee sax yow mënutoo ci am xaalis carrément et tout cest dire que il faut que il faut qu'on se structure d'une telle sorte que tey tu pourras t'organiser en entreprise ah ba nga xamante tey fekkee soxla nga financement xam au moins mhm. di nga mën a am as tuut bu xam ne après boo ko boo ko boo kiiwaatee di nga mën a amat leneen wax dëgg yàlla Boni hmm. Bless à part musique bi muy def day yëgu ci beneen activité wii u no à part waaw à la base je suis informaticien de formation je suis j'ai fait l'informatique de gestion mm -hmm. donc ce qui fait que nag tout ce qui est informatique tout ce qui est maintenance tout ce qui est plateforme donc dama yëngu ci loolu donc ñi nga xamante ne soxla nañ loolu aussi ils peuvent me contacter <laughs> <laughs> ñu tax ñu taxaw tuuti mhm. euh, ci li nga xamante ni par exemple maanaam boni dañ ko doon gis muy sikkar bien boni di sikkar boni dugg ci musique ça moom a il a bien fait de <laughs> décision <laughs> xam nga fii nee naa la lépp loo xamante ni ah, dañ koy def pour liggéey bi mën a jaar yoon rek parce que à chaque instant li ñuy mooy même question yi la la gars yi di posé et raison pour laquelle lañuy dañuy gëstu bu baax a baax mais bolis nga nekkoon di def si kër hmm. te yàlla suñu borom dugal la ci milieu boo xamante ni hmm. milieu showbiz laa ko tudde hmm. maanaam di nga gis lu nekk boni comment il fait pour allier les deux bon zikar zikar amour la comme mhm. ni musique nekkee ci man amour. ok zikar tamit noonu la nekkoon ci man amour. Mhm. tu vois donc ce qui fait que nag may def musique empêché wul may zikar ba tey. mais comme li may wax rek man tout ce que je fais je le fais à ma manière quoi. ok à dire que tey même ma génne ko ci guitare bi nànk. Mhm. xam nga.

ministère de l' moo ko doon def ak euh, en partenariat avec Yukonkom production mm-hmm. waaw loolu noonu c' était en 2008 ah c' était le rap poétique mm-hmm. boobu nag laa def premier benn titre boo xam ne xalaatumoon ne sax gars yi dañ ko jële et parce que c' était un projet boo xamante ne c' était le c' était la musique dans les écoles. Mm-hmm. projet mi ngi tuddoon euh, rap poétique. Mm-hmm. mais euh, album boobu noonu bon je pense que mi ngi tuddoon euh, rap poétiquement votre éloge de l' autre. c' est mm-hmm. de la poésie. mais poésie boo xamante ni élèves yi ñoo koy bindal seen bopp. que tu incites à ce que les élèves retournent à la lecture. parce que dañu gisoon ne élèves yi lii woon détails yooyu noonu tout. donc man ma bokkoon ci génnee mu neexoon professeurs yi mu neexoon élèves yi. ñu ma doon invité un peu partout. mais ci sphère ministérielle yi quoi parce que boobu la plupart ay gala la woon ay ay kii ay congrès. laa doon dem di jouer. Mm-hmm. après bon ci laa wax ne peut être lii bu ñu ko exploité après ça pourra amener autre chose. début début Blaise. début Bless waaw mooy li ma wax mooy 2008 bi. non genre début bi bi nga bi nga bi ngay bi ngay dugg tey jii daan na la doon na doon nañ la teree def. musique wala si si si si obstacle mënu mënu ñàkk quoi mënu wax ma j'ai trois frères yi nga xamante ne ni yàlla dafa def nañu ñoom musique la ñuy def te ça n'a pas été facile pour eux. Mm-hmm. dafa métti woon dañ ko xare vraiment. Mm-hmm. après man moom j'étais destiné à ce que ma dem jàngi ah parce que mère bi loolu la doon wax grand yi loolu la doon wax et tout. donc ce qui fait nag bon. commencement bi dama doon xare ah. dama doon sàcc di dem concert dama doon sàcc di bind dama doon sàcc di kii ci vois même guitare sax bi mu koy jàng jàng moo ko comme ñëw jàng dem ci école jàng ko. sama frère moo doon guitare bu tegee gitaar bi bu ñu génnee ma jël ko nànk xaw a def nii. xam nga noonu laa def ba ba <laughs> guitare. ma ma seetaan sa benn clip ah hier. Euh, hmm. booy way Baye Niass. Hmm. nga jël ko ak airu euh, Youssou Youssou benn euh, sonorité Youssou maa jigéen Ndour. ban ban si la. am na benn son booy way Baye Niass mais kii bu kii bu neex ah. clip la est-ce que du Love by Niass bi ma jël commencement Ndongolo bi. Ndongolo exactement Ndongolo bi fan la jógee. bon Ndongolo déjà il m'inspire beaucoup. parce que boo déggee musique am je pense que yéen sax yéen mën ngeen ko seede. mais mhm. c'est une musique spirituelle parce que Ndongolo boo ko dégloo ci ay paroles am rek da xam ne kii yeetekat la. wala boo ko dégloo rek dafa am feneen ci beneen xaalam bi mu lay yóbbu quoi carrément. Mhm. te man je l'écoute beaucoup yaa ngi donc instant bi ma amee feeling bu def son bi fekkoon ma tàmmoon di relever ay son di ko wéyantu nii donc bi ma amee inspiration bi ma ne comme gàmm baa ngi doon waaj a ñëw après yàlla xiir ma ci xaal boobu noonu ma ne bon bàyyi ma bàyyi ma wéy ci Baye après ma ma ma use mélodie bi te voilà je pense que les gens ont aimé par rapport à ce Euh, ñu gis ni jamono bi ñu nekk la nouvelle génération maanaam ba dañu wàcc suñu yoon mhm. est-ce que tey yaakaar nga ni la musique mën na leen a tegaat ci yoon boo xamante ni tey jii dina dina dina leen mën a permettre ñu ñu nekkaat fa ñu nekkoon bon musique gars yi dañ koy wax musique dafay suqali réew musique dafay jëmale kanam réew musique dafay yeete musique dafay jàngale mhm. bon musique bu yeete laa wax c'est-à-dire que tey musique boo koy def euh, qu'est-ce que tu attends boo ko dégloo mën na la delloo soit ci yàlla mhm. wala bu fekkoon da nga boroon sax mën na la baax mën naa jël exemple euh, son agresseur bu Omar Pène bu agresseur yu bëri dañ ko déglu papa jooju ñu <laughs> boo dégloo loolu agresseur yu bëri déglu nañ ko après mu delloowaat leen vraiment loolu mooy musique bu foofu noonu ci paroles yi et tout je pense que nit ko la bëgg bu dégloo loolu rek ala kulli xaal dina ko delloowaat ci boppam que boobaa mun naa ne musique buy jëriñ la wax dëgg yàlla. <laughs> Bruce di loo wax woo loo wax dala koy décortiquer teg loolu. <laughs> mais sa diggante ak euh, sang bu tedd bi maam Baye Niass. Baye Niass mooy suñu lépp. naa ne moom lépp moom moom yonent bi mooy léppam. Mhm. ñun moom mooy suñu lépp. donc moom ci tànk yi mu tegu rek mooy tànk moom la mooy tànk yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci moom lay roy loolu la sax da koy wax moom yonent bu doxee mu dox bu taxawee mu taxaw. Mhm. c'est-à-dire moom lépp li nga xamante ne yonent bi def na ko. moom tamit ci lay roy te ñun tamit dañ koy roy par rapport ak loolu nag par rapport ak bëgg yonent bi par rapport ak bëgg Cheikh Tidiane par rapport ak tamit nekk ci yoon boo xamante ne nii nit ku la gis du la ci ŋàññ bu la ci ŋàññ. Mhm. c'est-à-dire laaj di nga ko def sa tarixa li mu la laaj muy lancé mu yow sa fa way si fa muy xadara juma di ko def mm-hmm. sans pour autant mu da yàq la dara ci sa ndaw wala ci sa aar mm-hmm. donc euh, dañuy sant yàlla di sant Baye Niass ci loolu noonu macha allah lan ngay nuyoo taalibe taalibe maam Baye yi ñu def loo Baye Niass let's Meyek ci barham dama dof am li ma dal wuy mbëggeelooy ci sama xol bi la ne bët ma sàkku xam ko dëngël tarbiya am ci fat xu jeex ci laahu buur xam yàlla am na hamawate botak ñu xam ko moo di bëgg bay ña suñuy waaj suñuy bagaas moo di bëgg bay ña suñuy tukki yóbbante ba moo moo di bëgg bay ña suñuy jooy li ñuy jooy moo di bëgg bay suñuy ree li ñuy ree moo di bëgg Baay gërëm suñ maam Adama gërëm na doom ja segam suñ maam baaya dem lu baax baax dem Cheikh baaya baax baaya baax baaya baax baaya baax baaya baax ay taalibeem dañoo baax. ñi sant maam Baye Niass di nuyu sama mbokku taalibe Baye yëpp di leen ñaanal jàmm ju bare bari. Boni mm-hmm. euh, The Voice. lan moo la fa dugal euh, ñenn ñi. ci li ci liñ ma wax <laughs> nee nañ bravo loola <laughs> ñenn ñi nee nañ aussi tamit liggéey liggéey bu tara bi nga xamante ni moom nga liggéey la Boni nan nga def ba dugg ca. The Voice mënoo fa dugg ak bras c'est impossible. parce que déjà ñi koy def xamoo leen sax. comprendre nga ma ne mhm. ñi koy ñi koy ñi koy ñi daan def casting bi je pense que c'est benn télé Vox Africa. mais c'est c'est des ñag quoi ñag yi ñoom ñoo koy def. te man bi ma fi ba ma ciy dugg aussi c'est juste par hasard hein c'est juste par hasard. dama gis ne casting yi ubbi woon na rek et tout je l'ai vu sur Facebook après ñu ne da ngay envoyer sa vidéo tac tac après man ma jël sam vidéo def que j'avais la chanson de Salif Keita. Salif Keita moom laa defoon ak sama guitare sama nekk après ma envoyé leen ko ils étaient intéressés ils m'ont recontacté ne ma ndax mën nañuy defal beneen vidéo parce que xam naa dañu jàppoon ne dama <laughs> donc kii quoi. Mhm. tu vois ñu est mën nga ñu defal beneen boo xam moo gën a authentique et tout man leen ok si ça si ma toog jël guitare bi def yow leen. ñu ne mhm. kon vous êtes mhm. donc di nga mën a participer ci émission boobu noonu et tout. donc euh, on a participé on est parti vraiment ñu gis xam ñeneen ñu gis leneen. parce que c'était la première fois qu'on sortait du Sénégal et on a vraiment on a vu beaucoup de choses par rapport ak ci biti on a eu beaucoup de contacts aussi on a eu beaucoup d'expérience mhm. parce que tamit bu ñu demee vraiment xamuñu woon lu bëri mais bu ñu demee xam nañ lu bëri moo tax te loolu daf ñu jëriñ par rapport ak bi ñu ñëwaatee mhm. donc euh, yàlla daf ñu ubbil mhm. te daf ñu gën a tamit euh, conscientiser ci musique que ne voilà c'est pas xamante ni da nga koy fooye mais musique lu ñuy jàng la te musique lu séeréer la loo xamante ni vraiment nit ki bu ci nekkee da nga ko war a jox gëddëm quoi carrément euh, bi bi nga fa jugee lan la lan la defaat ci yow moom laa wax léegi déclic la li tax ma ne déclic la moom mooy avant The Voice j'étais en groupe j'étais pas en solo mais bi ma jógee The Voice laa ñëw ma xam ne j'avais besoin de retourner sur moi-même par rapport à ma musique par rapport à mes mélodies ni ma ko bëgg a génnee mënuma ko partager ak nit c'est-à-dire que mën naa ko partager ak ku mel ni Abou parce que c'est un musicien mhm. mais groupe parfois nu muy demee mooy que tey jii da ngay indi dara. keneen ki indi dara parfois même boo sentirul loolu noonu sax mais tu seras obligé ngeen jéem xool nu ngeen ko aménager pour mën a def dara. tu vois léegi man loolu ça m'a bloqué un peu quoi. Okay. c'est-à-dire que nag après bi ma amee mes sentiments par rapport a mes mélodies et je me suis dit il faut ma xam exactement man comment je vais pour mën a génnee man li nekk ci man carrément te loolu il fallait que ma am déclic toogaat après mën a mën a mën a engagé wu loolu moo indi sama carrière solo genre. ok Boni est-ce que yaa ngi def ay soirée genre foo xamante ni tey fan si dinañ fa mën a ñëw di la fa fekk euh, ak xarit yi ak am di jàmm yi parce que aussi tamit euh, musique bu ñu nekk dafa soxla loolu fan si nga xamante ni par exemple. Euh, comme yéen jeunes yi ñu leen di ñu ci bari seen loxo jotul seen ginnaaw mm. et que ni tey a am foo xamante dañ leen fa fekk chaque 18 heures wala chaque 19 heures pour mën a ñëw partager ak yenn moment yi mm. si si on avait commencé les lives mm-hmm. mais malheureusement comme instant yi situation dëkk bi yéen ñëpp xam ngeen ko mm-hmm. tout mm-hmm. ce qui fait que nag yéen euh, activités yi ñu doon def yëpp dañ ko mujj coaguler parce que on avait commencé à jouer fii nii ah attend beaucoup de dates yoo xamante ne nii peut-être bu duloon Covid bi dinañ doon jouer et tout. mais bon Covid bi moo ko coagulé instant bi mais nañ ñaan yàlla rek mu dindi fi ak jàmm. comme ça ñu delluwaat suñuy suñu activité te gars dinañu mën a fekk Amour Café wala hôtel Iline comme ça ñu def live incha allah. si on parle de la musique. Mm. Euh, du ñàkk référence am ci euh, tey kan mooy référence wu Boni Bless ci euh, milieu musical bi. moom mun naa ne bon paa laay gën a wax <laughs> parce que man moom man musique démb laa gën a déglu sax que musique tey jii parce que man ba tey ay Ismaïla Lo dañ may inspiré lu bëri mhm. parce que boo xoolee seen base musicale ñoo xawoon nuroo sax par rapport ak acoustique bi par rapport ak guitare bi yooyu noonu tout mhm. ñoom Ismaïla Lo ñoom Baba Malan ah surtout Salif Keita genre détail yooyu noonu mhm. ñoom ñooy gën a bokk ci ñi may inspiré par rapport ak man sama musique. ok hmm. rapport nga am ak euh, artistes yi nga xamante ni par exemple ñoom ñoom la jiitu ci milieu bi. bon on a de bons rapports ci ñi ma jot a xamanteel. ñi nga xamante ni jot naa xamante ne ñoom te ñi ngi déggante ñi ngi gisee sometimes wax dëgg yàlla. Mhm. on a de très bons rapports parce que man moom nag li may génn bëriwul gars li ñu may gis bëriwul aussi. <laughs> farata moo may génne bu ma amee émission wala loo xamante ne nii vraiment c'est quelque chose boo kii. Mhm. du may faral daal di génn lu bare. mais quand même ñi ma jot a xamanteel vraiment. on a mhm. de très bons rapports on a de très bonnes relations. te mhm. loolu dama koy sant maa bëgg ñoom ñëpp de passage macha allah. Euh, bu ñu ñu jeexale. situation bi nga xamante ni moom la réew mi di dund. réew mi jaxasoo. Mm. kenn xamatul fan ngay teg sa tànk. Mm. nit ñi confiance amatul. Mm. sutura amatul. Boni Bless en tant que waykat est-ce que yaa ngi waaj wala yaa ngi préparé loo xamante ni chaque yaa ngi yaa ngi yaa ngi def loo xamante ne tey chaque jour nit ñi buñ ko gisee dinañ mën a delluwaat. ah waaw loolu du mënta ñàkk parce que nit ki bu fekkee nekk na ci nekk na ci. ci àdduna bii nii nga gis situation bi ni mu mel. vraiment après soit tu na yenn affaire yi si xew da ma sañoon di xew mais ah, a mhm. nga xamante ne ni mën nañ fexe pour ñenn ñi baax mhm. dinañ ko fexe. ñi bon moom leen seen bon boobu noonu yiit seen bopp yiit seen xel a delloo xaar ci bi mais situation bi nu mu mel moom ñëpp la métti wax dëgg fa neex yàlla mais bon dañuy ñaan yàlla rek yàlla mi nga xam moom moo teg lii nii voilà mu tegg gars yi mu leeral seen bët yi ba nga xamante ne dinañ jël si yoon bu baax bi kon boobaa ñëpp dinañ dund si jàmm sans problème. macha allah léegi leget bi nii Boni Bless. Hmm. saa nga accompagner ko ak ak bi mën nañu génne leneen loo xamante ni maanaam du bokk toog li ñu doon dégg. leget bi waaw. j'ai pas compris. par exemple nii guitare accompagner ko dara accompagner wu ko. Hmm. xam nga sànq dem ko bàyyi tama mu jox la loo solidarité boo xamante ni macha allah. Hmm. nii bu fekkee ni yow boo ko cuqee nii rek tey mën na génne leneen loo xamante ni boo ko tamit. mais mais il faut pas oublier que lii nii du leket kese bongo la. looy wax ni ah bongo la donc c'est-à-dire sa waay kii yë yëkkatul ñu xool. Ah. fii dafa war a wàcc tey. <laughs> xam la ñaari affaire yi dañ koy. mais bon lii da nga ko nëbboon Sénégal yi. non pourtant nëbbu ma ko c'est c'est comme ça qu'on fait. Ah commencé c'est comme ça. léegi yow léegi yow bongo dañ koy defee. <laughs> léegi damaa bëgg ci bongo gi nga tagg taalibe Serigne Saliou yi. Ah. waaw taalibe Serigne Saliou yi. gani <laughs> tas ci barke Saliou Saliou Saliou Saliou Saliou Saliou yal na ñu yàlla tas ci barke Saliou Saliou Mam Saliou yal na ñu yàlla tas ci barke Saliou Saliou Mam Saliou yal na ñu yàlla tas ci barke Saliou tabaarkalla macha allah yéen a ngi seen biir chaîne Equivox TV tout à l'heure ñu doon euh, ànd ak ko nga xamante ni moo di Boni Bless mu way ki nga xamante ni moo di sang bu tedd ba Serigne Saliou Mbacke borom njurul borom jàppandal borom dooka borom jawaan ko ci roon xay ga sangub Cheikh Béthio Thioune maa ngi koy may taalibe Serigne Saliou yëpp di leen ñaanal jàmm ju bare bari Boni Bless featuring yaa ngi koy waaj yu am doole Boni Bless li ngi préparé album Boni Bless ci lan lay ci lan la nekk jamono ji loo xamante ni Sénégal yi mën nañ toog di ko xaar ok actuellement euh, on a sorti Love by Niass il y pas longtemps. Mhm. c'est-à-dire que instant yi am na beneen single bu war a génn fan yii incha allah. Mhm. Euh, bu bu mu neexee yàlla. Mhm. donc ci loolu lañ nekk. je pense que single bi dina génn fan yi incha allah mënuma joxe date pour l'instant mais dina génn fan yi on studio ñu si studio yi et loo ci woy mbëggeel nga ci woy wala la bon non gars <laughs> euh, mbëggeel bu boo xamante ni par exemple euh, dañ koy dem jënd ci mbëggeel même la vie te Sénégal dafa bëgg Sénégalais dafa bëgg mbëggeel boo yow yaa ma gën a <laughs> <laughs> yaa ngi gën <laughs> yi dañuy bëggante macha allah. Mm-hmm. dire que euh, am na projet boo war a génn incha pas longtemps. Mm-hmm. donc nañu xaar loolu noonu et donc mm-hmm. actuellement loolu lañ nekk au studio. maintenant voilà mais xam naa ne après bon ñëwaat Equivox TV comme ça. incha allah incha allah pour les featuring on a décidé comme li may faral di wax instant yi comme dañoo entamé benn style boo xamante ni c'est un peu. Euh, gars yi xamuñu ko bu baax a baax. Mhm. dañu dañ ko bëgg déjà imposé woon gars yi ne on fait genre de musique bii la ñuy def ñu xam ko ba pare. après ñu mën a ñu mën a xool pour les featuring mais xam naa ne c'est c'est à venir incha allah. incha allah mhm. rabbi euh, Boni Bless lan ngay nuyoo fans yi ak lan ngay tëjee euh, sunu émission mi ngi ci càppaandaw ga. parce que doylu ma nag. <laughs> doylu ma parce que su ma sañoon borom borom borom kàllabaas bi day day day day tëgg ak man ba li muy génne nii neex na li muy génne nii na waaye après bu bëri bu bëri laalee guitare gi ba pare il faut nga may ma ci yóbbu ma fële ci gaa yooyu noonu xam nga bongo man am na yenn affaire yu ñu génne. nga bàyyi boni te téye guitare am yow nga indil ma foo xamante dafa spécial la. <laughs> boni lan ngay nuyoo euh, sénégalais yi ak lan nga leen wax la nouvelle génération ñi nga xamante ni bëgg euh, ñi nga xamante ngi ci yoon bi di dem bon maa leen di bëggee déjà di leen ziar vraiment di leen waxaat li ma waxoon sànq rek que ne musique c'est pas des caaxaan. Mm-hmm. te lu lu noble la loo xamante ni nii gars yi dañ ciy sukkandiku pour defar pour pour fay ay kër pour fay ay courant pour fay dox et tout. dëgg la cest à loolu noonu métier bu noble la te du caaxaan. donc tu vois képp koo xamante ne nii dessiné na def musique na ko def te mu jël penu def ko bu baax. du genre bu fekkee jàngul mu jàngi bu fekkee jàng na mu yokk mm-hmm. à chaque fois bañ a rëy aussi delluwaat yi nga xamante ne ñooy grand yi. dina am à ci jàngee tout bu ñu jàngee expérience boobu noonu bu ko acquérir tey Sénégal bu amee ndam par rapport ak musique vraiment ñëpp am ndam. Mm-hmm. donc loolu laay gën a ñaax sama mbokku artistes sama mbokku jeunes vraiment ñu delluwaat à la source daal xoolaat ci ñi nga xamante ne moom moo fi am fii Sénégal parce que y a des y a des choses yoo xamante ni extraordinaire par rapport ak li ñu fi mën a puiser ci musique. ñu xoolaat ci loolu noonu dinañ nangu maag yow ñu sëy xaw ma sëy ni jaay ak seen waa kër dinañ nangu maag yow ñu sëy I'm in love amiin amiin Ba. <laughs> ah kontaan naa salaamaaleykum yéen ñi nga xamante ni yéen ñu doon seetaan c'était Abdou Saliou Sey eh, ki nga xamante ni moo di eh, Blaise. ak ak ak leket international nee naa la waa ji bàyyi leen ko xel parce que li muy tëgg ci leket gi tabarfakalla macha allah. taalibe Serigne Saliou Mbacke bi moo ko doon wax taalibe Baye Niass bi la ñu invité woon. yéen la man la sama waay tëjal ñu dem. acompanhe ko Acompañe con... Exacto. I'm not gonna let the way you got loud of praise, yeah, yeah, and loud of good for your birthday.